asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu nu jotee ndigal ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi lool te ànd ko ci sëriñ Abo Mouhamed Mbacke xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun yàlla ko fi sun borom gën a yàggal te gën a ak wéram wàcc nag ci kër gi nga xamante ne bii moo di kër sëriñ Mamor Mbacke moom Cheikh Mahamadul Mamoun Mbacke ñu gën koo mën ci sëriñ Mamor Sikaab ñu toog ak xalifaam bi nga xam ne mi ngi feggoog ay rakam di Serigne Amidoune mbake di jëw jëwriñu kër Serigne Mamor mu dend ak Cheikh Abdoul Ahad Mbakke rakam ak mbooleem taalibe yëpp ngir lan waajal bis bi nga xamante ne bii ci lañ koy fàttaliku ci ay ñaan waaye di ci fàttaliku ak njabootam mu war a nekk ñeenti fan ci weeru kor yi loolu nag moo tax ñu toog ci jataay bi fas yéene yëkkati kàddu gi jox ko Cheikh Abdoul Ahad mi wax ci turu Serigne Amidoun su noppee ñu jox Serigne Mame Balla Gueye mi nga xam ne mooy soññe njàngom alquran mi su noppee nag ñu jox Serigne Cheikh Dieye mi wax ci turu bokk yi su noppee Serigne Sidi Ndaw dana soññi taalibe yëpp ngir ñu waajal bis boobu nga xam ne bisub kenn la ci njabootuk Serigne Modou Mamoun di bisub kenn ci njabootuk Serigne Touba Khadim Rasoul di koo xamante ne bi ñeme ak mbo ñeme ak ak njabootam fonk ak taalibeem ak jaxasoog bokk yi kenn nattableetu ko bis boobu la ñuy waajal ci Cheikh Abdoul Ahad noonu ku liggéeyal Serigne Touba mu rëcc wara a fay kon ñun ñëpp ñu maa si déglu Cheikh Abdoul Ahad moom Serigne Mame Mor. ku ci nekk sa tur ak sa sant ci turu sëriñ Amidou Mbacke maa mooy xalifu sëñ Mame Mor wax ji ma wax mi ko wax loo ci sëñ Mountakha mi nga xam mooy xalifa général du Mouride. ak sëñ abo mi nga xam ne moo fi nekkal sëñ Modou Mamoun bis bii nag dafa nekk bis bu rëy ñu koy defal sëñ Mamor Mbàkke suñu waajur bisu sëñ Mamor nag bisum ñëpp la ndax sañ maam sëñ maamam ñëpp la woon ñoo ngi koy yëgal kon mboolem mbokk yi ci dëkk bi ak taalib yi yëpp ñu ngi leen koy yëgal mbokk yi nag maanaam xalifa sëñ Modou Mamoun yëpp. bàyyiwuñ kenn dale ko sañ seexanta Anta ma nga xam ne mooy xalifu sëñ Modou Rokhaya ñoo ngi koy yëgal moo ki rakkam di ko yëgal sëñ Siinu sëñ ak i rakkam di ko yëgal sëñ Saam mu sëñ Mbàkke Ëss ak rakkam di ko di ko yëgal sëñ Siinu sëñ As Ngede ak i rakkam hmm, sëñ Mamour ñoo ngi koy yëgal moo ki rakkam ak sëñ Siinu sëñ Ndaam mboolem daal sët yi bàyyiwuñ kenn ñëpp ñoo ngi leen ko yëgal ak Cheikh Abdou Sëñ Amdi ñoo ngi ko koy yëgal moo ko rakkam di di koy sedd yëpp daal kuñ jaar suutul kuñ jaar suut kuñ jaar suutul ñëpp ñoo ngi leen koy yëgal ci xam ne bisu sañ maam bisul ñëpp la rawante nag jàngkate alxuraan yi sañ sa sañ Balla Gueye mi ñoo ngi koy yëgal di koy yëgal waa daara yëpp ak jàngkar alxuraan yi ci dëkk bi yëpp ñoo ngi leen koy yëgal ndax sañ maam kat ku fankat alxuraan la ca alxuraan ni ko sëñ Tuubaa fonke woon ba wax naan xaraatiha kun si wa jaahu seetu te baaxa saa sidqi mu ne jàng alxuraan mooy sama tedd nga mooy sama daraja ca ca lu ma am ci alxuraan laa ko amee sëñ Tuubaa sëñ Maam noonu la fonke woon alxuraan kon nag ñoo ngi ci woo jàngkat alxuraan yëpp daara sëñ ba saaxo daa daara sëñ Balla Gueye daara sañ aas ak daara yi ci dëkk bi yëpp bàyyiwuñ kenn ñoom ñëpp woon nañ leen ci njàngum alxuraan ma maanaam sa sa sëñ aboo mi nga xam mooy xalifa sëñ Modou Mamoun nag maam lépp moom lañ ci jiital ndax mooy suñ kilifa mooy suñ lépp lépp jiital lañ ko ci jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaara ci turu sëriñ Hamidou Mbacke xalifa sëñ Maam Mor Sicap comme ni ko sëriñ Blad waxee léegi rek sëñ baa ngi woo daare xuraan yëpp waxtaan yi nekk bii Daaru Salaam boo gisalee waa daaray kaamil day mel ne ñi du sëñ Maamu Silla dana yóbbaale mbooleem ahlul quran yi nga xam ne ñoo yor daara ci Daaru Salaam li ko wër waaye di ci woo mbooleem daara joo xam ne rek man ngaa wëlante sëñ Maamoor Sikaab rek nga jàngal quraanu karim te yéene ko yool bi ñi daan teew ko saalika ci kër gi incha allah wax ne daan def leen def dañuy xëy commencé alxuraan ji huit heures incha allah ba tusbaar incha allah comme ñaa ngi ñaanug bëccëg la tusbaaree bu ñu xewloo pare incha allah takusaan si ànd daal di yeewi ñëpp incha allahu taala kon bàyyi benn daara waaye waa ahlu xasaay kasaalikaat ñi daan ñëw di jàng xasaay suñ bañ leen bàyyi loo xel bis bi boo xuraan ji àggee rek incha allahu ci tusbaar bi xasida yi mooy door di dem maanaam takusaan si mu daal di ñaanal mbooleem ñu yoroon alxuraan ak di kon day mel ni loolu mooy bi mooy woote bi si am mu ñëpp waaye rawatina waa ahlul quran ak waa ahlul xasaayid. waaw wa rahmatullahi mbokk ñu ngi leen di nuyu te di leen fàttali bis boo xam ni kenn fàttiwu ko mooy fi nga xam ne ci lañ fàttaliku sëriñ Maam ca di ko ci ñaanal ak njabootam ga jiitu yépp rawatina taawam ba soxna Faati Mbakke ak sëñ Ibru Muxtaar ak soxna Jaara ñooñu di njaboot ñoo xam ne dañoo ànd ak moom ci barsaqul Muhammadiya di leen fàttaliku di leen ñaanal loolu nag ci turu donge yi la ñuy wax di leen soññ ñu doolee góorgóorlu xam ne ñoo jaayante te nekk ak sëriñ bi te jox ko suñu bopp àdduna ak àllaaxira lu mu nu def ko lu mu nu tere nu ko noo xam ne seriñ mamoor nag tey jii la gën a tey jii la mën gën a mën a jëflanteeg moom ci ndigal sëriñ Amidou nag soññee na donga yëpp kon donga yi su waxee sëriñ Mamor wala wax sëriñ Fallou Diop mi walla wax sëñ Modou Ndour mi mooy Modou Dieng ak sëñ sëñ Ndonga Fall soññ na ñëpp kon nag dañoo bëgg ñu dolli donga yi doole takku te góorgóorlu xam ne ku fi ñëw ñoom la fi ñëwal nañu teel a ñëw balaa kenn ñëw ci taxawu barab bi lu ñu fa war a def ñu def ko rawatina waañ wi ak bernde yi. nañ fi mu jiit nag bu ñëpp demee nañ fi defar defar baas bi defar li war a defar lépp nañoo xam ne sëriñ bi bu koy wax donge yee tax rawatina waa kër gi bu kenn bëgg dara lu may ngërëmal sëriñ bi te ngërëmal sëriñ bi mënuñu ko am ci liggéeyal ko liggéeyal ko nag mooy taxaw bis bii jàkk suñu bëggee suñu mbirum àdduna ak àllaaxira jàkk daal na su bis bii jàkk sëriñ Mamor nag Cheikh Mahamadou Mamoun moo ko yëkkati jox ko Cheikh Abdou Lahad boole ko benn jàlla bi xamal ne ko àllaaxira laa la ko laaj lam war a def lépp def na ko kon nag leen war ci nun lépp ci moom lépp nañu ko def ngir bu nu am leenu bëgg sëñ bi ñu ngi lay ñaanal yàgg say rakk suñu borom yàggal leen fi te may leen gërëmal sëriñ Mamor ñu ngi soññi ñëpp wasalaamaaleykum wa barakaatu mbokk yi ñoo jot a dégg kàddu yi muy bis bu ñuy fàttaliku sëriñ Mamor Mbacke ibnu Cheikh kon sëriñ Amidou nee na mbooleem buntu kër yi Mamor Jaara yëpp mi ngi leen koy yëgal waaye di doomi soxna Assu soxna Maram Ba moom Maba Jaxu Ba di ko yëgal mbooleem koo xamante ne laal nga ci Maba Jaxu ak foo ko laale ndax sëñ Maam Moor nitug diine la woon waaye doomi lislaam la woon di ko yëgal nag mbooleem buntu kër yi borom gaawaan yi la ko tàmbalee ci buntu kër alaaji sëriñ Tàkko ba ci buntu kër sëñ Abdou Góora Mbàkke bàyyiwu ci benn buntu kër di ko yëgal it njabootug borom gaawaan gu jigéen gi bàyyiwul benn buntu kër ndax noonu la sëñ maam demee ñoom di ko yëgal nag mbooleem yoonu murit wépp bàyyiwul fenn bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bis bi daal bisu fàttaliku la ak ñaan di am lépp nag ci bëccëg bi ñeenti fan ci weeru kor yi sëriñ Amidou Ndane ne ne mi ngi ci tàllal loxo lépp di ñaan képp koo xam ne teew nga ci bis bi yàlla mi mën a faj say aajo yalla na faj say aajo adduna ak jooj alaaxira wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.